Bienvenue sur Salam Vision. Euh. sëriñ bi tey lan nga ñuy jox mhm. ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. ay njëriñam mhm. ak yan tegtal mhm. ak euh, lan mooy salaatu ala nabi waaw mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa julli ci yonent bi nag du caagin ni teg sa sajaada naa allahu akbar asalaamualeykum waaye mooy ñaanal yonent bi mooy ñaanal rasulullah ñaanal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xamante ne nii képp ku koy def yaag yàlla yéen a bokk di ko def ndax moom moo ko digal malayka yi ni ko yemul ci digal leen ko dani dama koy def defandoo leen ko ak man maanaam julli ci Seydina Muhammad julli ci Seydina Muhammad yàlla moo ko njëkk def moo ko njëkk a def ànd ceeg malayka ànd ceeg malayka yi nee na bu leen ci yem ko mortal wasallimu mm-hmm. bu leen yem rek ci julli gi léegi nag mooy li nga xamante ni fi nekk képp koo xam ne yàlla dogal na nga bëgg ñaanuk sunu borom mm-hmm. di wàcc ci yow del julli ci yonent bi maanaam loo ngay sàkku dara mu dëgër mu dëgër del julli ci rasul del julli ci yonent bi maanaam nga xamante ne heure boo xëyee nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mhm. suñu borom ci boppam moom moo lay ñaanalal boppam allahu akbar waaw ndax ndax nee na benn boo julli ci moom ma julli ci yow benn fukki yoon nga julli ci man moom fukki yoon ma julli ci yow junni yoon te junni yoon boo julli ci moom sa yaram araamal na sa waa allahu akbar kooku bokk na ci fonk gi ko yàlla fonk li tax ñu war koo fonk di julli ci moom mhm. xataa badaakat bu sama fi arsikal muazimi boo demee aras loo fay gis laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi lépp lu sunu borom fonk aras rek maanaam ci biir ajjana loo fa gis fonk mu fonk ko bind nañ ci turu yonente maanaam moom moom rek la yàlla jël turam waaw tafli taf ko turu rasulillahi turu rasulillahi ba Seydina Adama tooñee sunu borom ba sunu borom war koo jéggal mhm. jéggal gu ba mu ko nee dañu ko jéggal ma ngir ci ci ci daraje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam mu ne ko foo xamee kooku mu ne ko damaa gis ni loo sopp lu nekk rek bind nga foo xamante ne nii dara dara néew fa <laughs> waaw moom moom yonent bi julli ci yonent bi dana tax a am ci kër yi kër yi nga xamante ne mooy këru abraar yi ñu tedd ñi biir àjjana da julli ci yonent bi dina la may ci kër yooyu mm-hmm. julli ci bi dana tax a bari ay soxna biir àjjana julli ci yonent bi dana tax ñu jéggal la say bakkaar julli ci yenent bi dana tax ku la gis sopp la mhm. te xanaa xamoo ne alaaji pap julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw loo xamante ne nii yaa ngi doog a bu budd àdduna amagoo soxna amagoo dara mhm. ngay julli ci yonent bi di julli ci yonent bi ba mu sax ci sa deret mhm. doom joo jur kenn du ko yërëm allahu akbar loolu julli ci yonent bi moom moo ko maanaam booy bëri looy julli ci sidina Muhammad waaw doom joo doom joo jur kenn du ko kenn du ko yërëm moo xam yaa ngi ci biir sëy moo xam nekk amagoo soxna amagoo soxna maanaam ki mu dàq sax maanaam ki nga xamante ne daa nekk xale rek tàmm di julli ci yonent bi ba mu dem ba jaxasoog deretam lu mu jur loola day baax allah loola day barkeel ndax lan yàlla moo fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi mhm. dana tax mboolem lu bakkar rëy rëy rëy rëy rëy rëy ak lu mu metti metti metti boo boo ci saxee sunu borom effacé la bakkar yooyu julli ci yonent bi fi ne nit ki dina julli mhm. julli yi ko muy julli juróom mën na koo julli ba pare sunu borom taxañ ko ko sànni ko ko nit ki mën naa woor weeru koor ba koor gi jeex mhm. ñu ñu taxañ kooram googu du ca am lu dul xiif ak mar nit ki mën naa def leneen lu yoo xamante ne nii ci ay jaamu yàlla la yoo xamante ne yàlla mën na koo bañ a nangu waaye salaatu ala nabi ak noo ko mën a defee sunu borom nangu ko allahu akbar te bu bis pencee kat fi ne boo xoolee salaatu ala nabi nit ki bu fekkee ni mi ngi koy liggéey dëgg mhm. bu bis pencee ku mu mën a yoreel mën nañoo jël jël julleem jox ko jël kooram jox ko jël asakaam jox ko waaye salaatu ala nag moom yow mi ko def rek la ñu. man maanaam àq bi nga ameel doomu aadama àq boo mën a ameel doomu aadama ëllëg mën nañoo jël ci say julleeg say koor lépp jox ko ba mu des salaatu ala nabi allahu akbar loolu yàlla moo fonk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu waa ji bari na doole kenn du sallallahu alayhi wa sallam kenn kenn kenn du moom billaahi te te te bari na ci ay salaatu yoo xam ne bu fekkoon tey ji euh, euh, li ma bëgg nga xamante ni ndaw ñi tey jii mbëkk gi ñuy mbëkk gaal yi mhm. am na ci salaatu yoo xamante ne buñ ko téyoon buñ ko téyewoon di ko liggéey daraja maanaam euh, euh, coono bi ñuy daj ci ndox mi bay àgg bitim réew ak lañ fay daj ak yooyu buñ ko dajee ci salaatu bi salaatu bi jox leen lépp maanaam am nañu ne ci réew mi sëriñ bi jamono yi ñu toll nag waaw ah. euh, mbir mi dafa dëgër dëgër lool dëgër am na ci ñoo xam ne ñu ngi xool seen i way jur mhm. amuñu lu ñu leen jox waaw ñii ñu ngi xool seen i doom di xool seen i soxna mhm. amuñu lu leen jox jaar ak salatu ala mhm. ba lépp yomb salatu ala nabi gis nga gis nga gis nga sëñ Pape salaatu ala nabi fi ne boo am na bu ñuy wax allahuma salli ala al mawsuuf bil karami wal juudi kim yaawu la kim yaawu salaatu ala nabi la maanaam fi nit ku ko soxal di ko doxal di ko liggéey sunu borom dana la may wërsëg ba doo soxlaal kenn allahuma salli ala al mawsuuf bil karami wal juudi ala al juudi waaw nga koy nga koy saxal di ko liggéey sunu borom dana la dimbali ba doo soxlaal kenn kenn kenn kenn te loo ko ñaan dana la ko may. allahu boobu ci sa ci salaatu ala nabi. ci salaatu ala nabi yi bokk am na ci yeneen salaatu yoo xamante ni fi ne nit ki bu ko saxalee maanaam du tawat. du hmm? tawat bay dem hôpital. te loolu yàlla moo ko moo moo ko man moo ko maye te salaatu boobu mooy allahumma salli ala sayyidina muhammad tibbil xuloo bi wa da wa dawaa iha wa nuurul absaari wa diya iha wa xutu arwaahi wa xisa iha wa nuurul absaari wa diya iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi ne ñett fi ne salaatu boobu képp koo xamante ne yaa ngi koy saxal ñetti téeméer boo ko def ñetti téeméer ñetti téeméer bis bu jot waaw suñu borom dana la dimbali ba doo tawat te boo tawatee di ko def tawat ji moom du dem kanam ginnaaw day wàññeeku ba jeex la jëm allahu akbar fi ne tey ci àjjuma ji nga julli saan ba pare allahuma salli ala sayidina muhammad habdika wa nabiyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nga def ko nga def ko euh, quatre-vingts fois ñu jéggal la mbàkk bàkkaaru juróom-ñetti fukki at allahu akbar mais sëñ bi salaatu ala nabi salaatu ala nabi li mu mën doy na waar maanaam nga xamante ne juróom-ñetti fukki atu salaatu euh, bàkkaar sunu borom da la koy jéggal fi ne boo boo ko defee ajjuma ci guddi comme tey nga def ko ci tàkkusaan bi loolu lay def waaye ajjuma ci guddi ñeenti téeméeri at yoo xamante ne nii ci bàkkaar dañ la koy jéggal ci ci ci ñeent fukki ci ci 80 salaatu ala maanaam li nga wax léegi nga def ko maanaam guddi aljuma allahuma salli ala sayidina muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nga di ko def 80 euh, fois 80 fois boo jullee tàkkusaan ba pare waaw ñu jéggal la bàkkaaru 80 ans nga def ko guddi aljuma guddi aljuma 80 fois ñu jéggal la bàkkaaru ñeenti téeméeri at allahu akbar léegi loolu lan nga ko mën a ameel ci lu dul salaatu ala nabi te salaatu ala nabi nangu na nga am jàpp def ko nga ñàkk am jàpp def ko waaw moom salaatu ala nabi te mënoo julli te jàppoo déedéet te boo xoolee fi ne ñi bind ñëpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñi bind ñëpp ñii bind ci science mhm. ñii bind ci ci leneen ñii bind ci leneen mhm. loolu lépp boo ko dajalee li ñuy bind ci yonent bi moo ëpp moo moo gën a bari xamoon nga ni abajada am na ay salaatu ala abajada bi hawaza waaw kala mën a saxafa daxara saxada daxasa ko déedéet boo jëlee alif bi allahuma salli ala nuuril alifi fii nuuril bi nuuril wa salaaman daa imayni bi daawi mulki la yaa alifu yaa alifu est ce que xam nga ni turu yàlla la lii de maa ngi koy allahuma salli ala siril bayi fii wa sallim ala bi nuuril bi mulki la yaa baa yaa baaw waaw allahumma salli ala siril jiimi fii siril jiimi bi siril jiimi wa sallim ala nuuril jiimi fii nuuril jiimi bi nuuril jiimi adada ma fi hilmi la salatan wa daa imayni bi daa mulki la yaa jiimu allahumma salli ala nuuril daali fii nuuril daali bi nuuril daali bi bi wa sallim ala nuuril fii nuuril daali bi nuuril daali adada ma fi hilmi la salatan wa salaaman daa imayni bi daa mulki la yaa daalu nga xamante ni noonu nga koy toppe ba abajada bi jeex ba 28 lettres ba 28 yi jeex fi ne boo ko defoon bis bu nekk maanaam salaatu bu nekk ak arafam nga di ko liggéey ba ñaar fukki fan yi ak juróom-ñett mat bu la neexee tegal sa kurus bu liggéeyate kurus bu bis pencee bu la yàlla fayee doo kenn doo ñëwee kenn ku yàlla bind. allahu akbar maanaam salaatu ala nabi li ci nekk ci ay xéewal doy na waar ak li ci nekk ci ay jaamu yàlla it. fi ne noonu mu amee ci xurufil hijaaiya yi mooy abajada boobu. waaw noonu la amee ci turu yàlla yi. fi ne bu la neexee nga ne allahumma salli ala sirri leehi fii sirri leehi bi sirillaahi wasallim ala nuurillaahi fii nuurillaahi bi nuurillaahi adada maa fi hilmilaa salaatan wa salaaman daa imayni bi daawami mulkilaa yaa allahu allahuma salli ala sirri rahman fii sirri rahman bi sirri rahman wasallim ala nuuri rahman fii nuuri rahman bi nuuri rahman adada maa fi hilmilaa salaatan wa salaaman daa imayni bi daawami mulkilaa yaa rahmaanu nga xamante ne nii benn bu ci nekk rek ci asma ci asmaawulaayil usna waaw benn bu ci nekk nga def ko turu turu turu turu yàlla ba mu maanaam kon bu dee fataaxu bu dee danga bëgg wërsëg waaw nga ne allahuma salli ala siril fatah fii siril fatah bi siril fatah wa sallim ala bi nooril fatah adada maa fi xilmi laa salaatan wa salaaman daa imayni bi daa mulki laa yaa fataahu nga def ko 489 mais kon sëriñ bi li ma naan li may wax naan Seydina Muhammad mooy ko sakkan ki mooy ko sakkan lii daal mhm. euh, euh, nit kon mën na am tedd nga am mhm. wërsëg mhm. ci julli ci rasulillah ci julli ci rasulillah yi fi ne ki nga xamante ne daa bëgg a falu ak ci fal gu mu mën a doon ci adduna ngay saxal allahuma salli ala as saabih lil xalqi nuuruhu wa rahmatun lil haalamina zuhuruhu am na lim boo xamante ne nii boo ko dee def di ko saxal ku yàlla bind munu laa teefalu waaw allahuma salli ala sayyidina muhammad ku yàlla bind mënu laa teefalu mënu laa teefalu moo xam président nga bëgg doon moo xam ministre nga bëgg ne moo xam directeur société mhm. moo maanaam saxalal saxalal saxalal di liggéey salaatu ala nabi boobu ah boobu xam allahuma salli ala sayyidina muhammad asabih lil nuruhu waaye loolu nag bi am na ci yoo xam ne il faut ko sama téléspectateurs yi waaw danaa moom moom moom yow émission bi émission boo xamante ne nii yonent bi lañ ko tudde rasulullah yi ko moom de fi ne lépp loo bëgg ci wàllu loo xamante ne day jëriñ doomu aadama waaw boo ma ko ma wax la ni la nangam lañ koy defee man ku ma gën ngir taxulaa gën ngir Bienvenue sur Salam Vision.